Euh, pourquoi le choix de Bassirou Diomaye Faye alors cette ñetti affaire laa ci mën a mhm. bu njëkk bi ñun awale bañ koy créer dañu ne man boog maa ni bëgguma awale nekk parti Abdourahmane Diouf. Mhm. bés bu ñu demee bañ ne awale Abdourahmane Diouf moo ko moom rek mooy échec na moo tax ñun dañu toog pendant des mois ñuy recruter ay nit di leen wax ne projet bi lii la. Mhm. boobu projet bi amagul sax tour fii laa ko annoncé woon cette TV d'ailleurs ak Maymuna ñu dawal 6 mois ñu ñi ñoo ñëw bokk ne ma xalaat nañu ne war nañ mën a liggéey yow ñu indi seen programme indi seen tour tour bi du man sax maa ko choisir donc bu ñu tolloo ci lu mel nii man du ma leader politique boo xam ne damay toog ma ne tel candidat moo ma neex damay dem ci moom mhm. on a organiser une assemblée générale le 27 janvier mhm. xam nga liste yi le 20 janvier la génne mm-hmm. une semaine après le 27 janvier on a organisé une assemblée générale mm-hmm. les physiques les 46 départements du Sénégal étaient représentés mm-hmm. waa jaspora def seen liggéey envoyé ñu seen présentation PowerPoint ak ay critères premier critère est-ce que éliminer nañ ñu mais est-ce que dañuy bokk ci élection yi ñu ni bu ñu bokkul ci élection yi day mel ni Sénégal ñoruñu parce que éliminer nañ ma rek ma toog croiser les bras jàpp sama njàmbur day mel ni Sénégal ñoru ma donc ñu répondre à l'unanimité ne dañuy bokk ci élection yi deuxième question kan la ñuy àndal pouvoir wala opposition man xamoon naa réponse bi parce que ñun opposition lañ nekk. Mhm. mais il fallait poser ko aux militants pour ñoom ñu tontul seen bopp. Mhm. ñu ne ala kulli alin mënuñu jàppale candidat boo xam ne mu ngi jóge ci pouvoir bi. Mhm. léegi nag troisième question bi mooy ci biir opposition bi kan nañ ci mën a jàppale. tur yu bari génn nañ. soxlawul ma koy lim fii. mais tur yooyu ba ñu génnee le nom du candidat de Pastef dafa nekk à quatre-vingt pour cent pratiquement. Euh, sur quelle base ci lan la ñu sukkandiku ba ñu wax ni que nañu ànd ak Bassirou Diomaye Faye parce que aujourd'hui comme tout le monde le dit euh, Diomaye euh, mooy Sonko Sonko mooy Diomaye mhm. gis nañ popularité bi nga xamante ni yëpp Bassirou Diomaye Faye am na ko et que il a plus de chance d'après lu ñu gis bien sûr tey mu gagné woon présidentielle yi wala mu demoon un second tour mhm. lan moo waral ñi nga àndal ci yan base la ñu la ñu sukkandikoo pour wax ni que nañu ànd ak ki nga xamante ne Bassirou Diomaye loolu mooy deuxième élément de waa awale dañu ne ñun dañu amoon ambition jël le pouvoir doxal suñuy idée suñuy idée ñun boo koy tënk ci ñett la nekk bu njëkk bi mooy suñuy institution ce qu'on appelle le patriotisme institutionnel nan la ñuy fexe ba Sénégal moom boppam ci présidence de la République ni muy doxee ci assemblée nationale ni muy doxe ci justice bi ni muy doxee ñu am ci ay xalaat livre bi nga doon wax sànq de la concurrence à la concordance ci loolu rek la nekk institution yi le patriotisme institutionnel mooy un deux bi le patriotisme économique bon je je combine d'ailleurs les réponses ngeen gën a comprendre parce que quand on a parlé ñun de patriotisme institutionnel suñu programme bañ koy bind yàgg na programme Diomaye bi génne Diomaye président axe numéro un bi mooy le renouveau institutionnel et l'engagement africain presque mot pour mot li nga xam ne ñun moom lañ bëgg a def. maanaam ni ñu gisee Sénégal ak ni ñu gisee Afrique ñoom noonu lañ ko gisee bien que nag bokkuñu woon yoon. Mhm. suñu deuxième point ñu ne patriotisme économique ñun ñooy dëkk boo xam ne koom-koom bi nekkul suñu loxo ñun sénégalais yi. Mhm. loolu moo tax ñu ndóol tey am na rapport bu génn tey 13 mars. Mhm. Euh, 2014 Sénégal mu ngi 169e place. sur 192 maanaam àdduna bi li muy yaatu yaatu ñun 24 pays lañ ci raw. te par rapport ak 2012 bi président Macky Sall di jël pouvoir régressé nañ de 15 places donc émergence boobu dañ koy xoolaat. Mhm. là nous on parle de patriotisme économique ñoom ils parlent d'endogénéité économique mhm. et souveraineté alimentaire. muy pratiquement même xalaat. ñun là on parle de ay solidarité sociale ñoom ñu indi ko ci capital humain et qualité de vie c'est-à-dire que pour koo xam ne observateur nga. te yemoo rek à la surface di nga xam ne le projet souverainiste africain bi Pastef yor c'est pratiquement le même projet bi nga xam ni moom la Awala yor maintenant nag dans la vie politique ku nekk am nga droit jël sa yoon donc puisque Awala ñoom ci loolu lañu leen nàmpale bu ñu nekkoon pouvoir loolu la ñuy appliquer mais dañuy xool suñu ay xalaat yi nga xam ne conseil constitutionnel nangu ko pour mu nekk mu dem ci élection bi pour xalaat yooyu kan moo koy incarner. Mm-hmm. on s'est rendu compte et d'ailleurs mm-hmm. c'est très important mm-hmm. parce que bi ñuy def assemblée générale bi xamaguñu woon ne Diomaye lañ choisir le choix s'est porté sur le candidat de Pastef le 27 janvier dem leen ngeen xool chronogramme bi donc ñun ce qui nous intéressait c'est pas Moussa Ndiaye Ablaye Diop c'était que ban projet moo gën a ànd ak suñu projet. mais le profil am na solo docteur. donc ma ne déedéet. dinañ compl dafay complété. waaw mm-hmm. mais puisque ils auraient waaw waaw xam nga profil bi am na solo. Mm-hmm. mais ñoom cest à projet boobu c'est Ousmane Sonko qui l'a porté loolu mooy dëgg. moom la Sénégalais yi xam. moo ko liggéey ba mu tollu fii. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko ci boppam bu mënee bu mënee renoncer. Mm. ba ne projet bi. maa ko porte mais nangu naa keneen ku tudd Bassirou Diomaye Faye yor ko mais waxatuma laa ñun. et vous avez confiance. ah mais moi j'ai totalement comme confiance. Mhm. le disent, mm -hmm. comme comme l'a di mhm. ki toogoon fii démb. koo xam ne mosul nekk chef de service. mosul mhm. gagné municipalité. waaw mosul wane dara comme preuve. ñu koy dénko réew mu mel ne Sénégal le pays de Senghor de Diouf de Wade de Macky. waaw léegi yow nga gëmm wóolu ko. ban bon déjà gëmmuma <laughs> maa ngi lay wax argument yi nga xam ne moom lañ teg. sa argument donc c'est un choix très éclairé. il a une marge de convergence. il mm-hmm. mm-hmm. des accointances programmatiques. tout à fait mm-hmm. exactement. léegi euh, ban école la ñuy jàngee pour nekk président de la République. amul man de xaw ma ko. amul président de la république. c'est le seul poste mm. boo xam ne yaa ngi koy defi te amoo ci expérience. à part à moins que nga nekk un candidat sortant. Mm. dama lay yokkal foofu. Mm-hmm. dans le Sénégal au cœur du chef de l'État. il mm-hmm. il il l'avoue même. Ouais. en disant que même en exerçant le pouvoir il a appris. exactement vu parcours. exactement mm. affaire bi. c'est une question d'intelligence xam nga ñi def science politique dafa am lu ñuy wooye des des compétences en politique mm-hmm. par exemple tey boo nekkee président de la République Macky Sall il est ingénieur mm-hmm. mais il prend des décisions sur l'agriculture mm-hmm. sur l'industrie sur l'art sur le tourisme sur tout donc c'est une question d'aptitude intelligence et une capacité à s'entourer te waa PASTEF ak waa Diomaye président li ma fa dem ni yàggagul mais loolu laa leen commencé wax man leen projet bii ñu nekk ni ñëpp ku nekk bàyyi la nga nekkoon ba ñëw ci avec un minimum d'intelligence c'est un projet qui peut transformer le Sénégal te poser nañ le premier acte bi nga xam ne moom may def confiance wane nañ ne c'est pas un projet personnalisé tey mënoon nañ ne Ousmane sonkoo nekku fi projet bi dee na Ousmane sonkoo nekku fi sa Diomaye bu lu woon Diomaye mënoon na nekk Habib Sy bu nekkul woon Habib Sy mënoon na nekk El Malick Ndiaye Cheikh Tidiane Dièye tu vois donc ñoom désintéressement boobu ñu am pour wane ne affaire bi du ay question de nit mais question de projet bi la wax dëgg yàlla nag Sénégal am nañ ce que j'appelle la génération di d'idées mhm. des ressources humaines suffisamment formé boo xam ne koo ko ci jox tey mu doxal ko bu boobaa président bi ñuy fal moom mooy am intelligence te gëm naa ne Diomaye fay am na intelligence boobu mhm. wër loo boppam ñoo xam ne da ngay wax rek ñoom ñuy defar parce que le vrai bon leader mm-hmm. mooy ki nga xam ne tu donnes les grandes orientations stratégiques là en l'occurrence les orientations stratégiques on l'a déjà dans le mm-hmm. projet af dañuy ñëw rek doxal ñun ñëpp on a géré énormément de projet mm-hmm. ci ay dëkku jàmbur muy dox ñu ñuy félicité à fortiori maintenant un projet dans notre pays boo xam ne ñun ñoo ko concevoiral suñu bopp